waaw maanam sëñ Tuubaa moom su wootee ñëpp ñëw kon comme moom euh, Tuubaa Sénégal la ne mooy borom réew mi kon bu Tuubaa wootee moo fi war a njëkk moo fi war a waaw loolu de moom euh, rafetlu nañ ko lool waaw ab teewaayam fii ndax da di taalibe comme ñun ni ñu nekkee taalibe ci kër gi. kon tey bu dee ñëw ci màggal gi lu war la mu def ko comme ni ko taalibe yépp di defee tey ñun. dañ ñi ay taalibe yoo xam ni dañoo tënku ci genn kàddu ndigal rek lañuy déglu te saay bu jógee amatuñ sago dañuy jëfee te sëñ bi dafa joxe ndigal ci ñu teeru président Macky Sall kon war na ñun ñëpp ñu teeru ko tey boo xoolee démb bi muy ñëw nga xam ni waatu baa teeru nan président bu baax a baax teeru ba gën a rafet mbooloo mi bari na ñëpp jëfe nañ digal li teeru nañ président Macky Sall ci ni nga xamante ni si moom la ko sëñ bi sàkkoo woon ñun ñëpp teeroo nañ ko noonu te defale nañ ko ko noonu tey ma ci yokk ñu gën a bàyyi xel màggaluk sëñ Bamba ak politique bokkut nañu jël màggal gi defale ko borom ni mu ko bëggee te lépp lu xeetoog politique ñu génne ko ci lépp lu xeetoog wàllu politique sëñ Bamba néewul ne woote naa màggal gi ngir ñu politique lépp lu waaye def ci màggal gi defoo ko ngir sëñ Bamba defoo ko te yàlla tax lemal loola nga téye sëñ Bamba defar nag màggalam démb tey soog a ñëw ñun politique gun politique gun li ñu ëppal solo daal mooy nu ngi ànd ak sëñ Bamba te saa su nekk léppam doy nañu lépp lu mën a am ak lépp lu mën a yor moo nu gën a lu keneen yor ak lu keneen am sëñ Bamba la ñu am lu dul moom jàngat bi ñu ci am de mooy jàpp ne rek ab taalibe la comme ñëpp rek sëñ bi woote mu ñëw doon wuyu si di siyaar rek mu ñëw itam fekk fi ñu koy teeru dalal ko tatagal ko comme ni ko sëriñ bi digle woon rek loolu lañ ci jàngatee incha allah. di dénk mbokki taalibe yi rek ñëpp yaatal rek ñi nga xam ne ñoo dëkk Touba ñu yaatal gan ñi bu baax a baax comme ni ko sëñ bi digle woon rek ñu teral la ko gan ñi bu baax a baax rek incha allah rabbi lu ci waaye man rek waaw di sant bu baax di gërëm ñëpp in uridu ila islam ma tatatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum jërëjëf waaw ah, du ko rafetlu du ko rafetlu du ko rafetlu rek du ko rafetlu waaw Macky Sall moom comme mooy président réew mi def na li mu war a def ah man loolu laa gis affaire ah def na li mu war def. waaw ñu ngi kontaan ndax ndax loolu sax moom moo ko war ndax ndax président moom bu sëñ bi wootee moom lu mu jàppoon da ko war a bàyyi ñëw ndax sëñ bi mooy lépp waaw ndax ndax saal Sall moom danoo kontaan moom torop ci teewaay fii ci Touba kontaan nañ ci moom. ndax loolu moo ko war président loolu loolu la war a doxee ci am réew programme amee nga dem ziare nemee ko ña xawle loolu ci ci teewal sëñ bi ak ci xéewali sëñ bi ci la bokk waa waaw teewaayu njiitu réew moom dañ koy rafetlu rek ndax euh, lu mel ne màggalug Touba moom yaakaar naa waxuma la njiitu réewum Sénégal waaye danañ dem ba yeneen njiitu réew am naa ci ne danañ koy seet si euh, dañ koy rafetlu ah limu mu yéene ci Touba it dégg nañ ko a ah, ñu ngi ko ci ñaanal bu fekkee ne loolu mu wax lu mu bëgg la yàlla na ko suñu borom jàppale ba mu matale ko di ko di ko di ko di wax ñëpp nañ ko jàppale rek ndax li am solo mooy yéene ju rafet rek comme yéene ci dëkk bi yéene ju rafet ñun Touba la ñu am sëriñ bi la ñu am ku yéene ci dëkk bi yéene ju rafet rek ñu jàppale ngir jëmmi sëriñ bi waaw ah, loolu moom ñu ngi koy rafet rafetlu teewaayam ci dëkk bi ah di rafetlu tamit niñ ko tertoo ndax dégg nañ ndigalul sëriñ bi waaw ñun nag amuñu loolu sëriñ bi comme ganuk sëriñ bi la moom dañ koy teeru teral ko ndax ma daa màggal si waaw politique si ñun dañoo jàpp ne dafa màggal si képp ku ñëw na ngir sëriñ bi danañ la teeru teral la moo xam président ak koo mën a doon ndax sëriñ bi la ñuy xool yow ganuk sëriñ bi lañ